homme d'affaires yi nga xam ne ay taalibey murid lañ sasoo nañ ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi la toll ci fukki bâtiment ak ñeent mu nekk liggéey boo xamante ni ñu ngi ci mi ngi avancé bu baax a baax ci visite de chantier bi nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi te sëriñ Maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou leen ñëwoon nañ doon ne si ñoom ñii fan lañ toll ci liggéey bi nga xam ne moom lañ sasoo woon bi ñu accès sur le terrain ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk ci ay techniciens leeral nañ bu baax a baax ne liggéey bi mi ngi avancé te it délai yi danañ ko respecté. bu ngeen gisee li fi nekk yëpp mën nañ ne daanaka diggante 5 mois lañ ko réalisé instant bi ni ñu ngi ci bâtiment Ececom xam ne entreprise Ececom moo ko yor mais nekkul ne entre Ececom rek moo fi nekk am na Afribat ak euh, yeneen ñaari entreprise yu bees yoo xamante ni yëpp ñoo ngi fi ñoom ñoo coaliser liggéey liggéey bi ni leen ko mën a waxee daanaka euh, gaaw na gaaw boo xam ne li ngeen fi gis yëpp yëpp yëpp mën nañ ne si diggante cinq mois lañ ko réaliser diggante 5 mois lañ ko réalisé entreprise wax dëgg yàlla def nañ si seen kéemtulaay kàttan euh, góorgóorlu nañ si équipe technique bi jàpp nañ si wax dëgg yàlla euh, ba liggéey bi toll allah rafet nañ ci njort lool lool parce que boo xoolee liñ ku réaliser lii dans 5 mois ma am nañ njort ne si boo xoolee ni instant bi niveau yi jeex na trois niveau lañ am niveau yi yëpp daanaka presque jeex na kon il daanaka maçonnerie bi yooyu noonu daanaka mën nañ rafet nañ njort ne dinañ pare incha allah. waaw bâtiment bi ñu nekk moom résidence élève la ñu nekk trois niveaux R plus trois euh, nekk euh, RDC bi daanaka mi ngi toll si vingt deux chambres euh, chaque niveau aussi dafa répété wu daanaka vingt deux chambres la en RDC premier étage deuxième et troisième étage mais aussi au-delà aussi ah, aussi on a aussi des résidences maîtres coraniques et aussi on a des salles d'études aussi. am nañ fi aussi ay ay salle d'étude euh, mooy yi ngeen romb fële na le ñaar lañ fi benn bi ESECOM moo ko yor benn bi Afribat moo ko yor bu si nekk six classes la six salles de cours la yaatuwaay bi toll si cinquante euh, euh, quarante cinq mètres carrés bu si nekk daanaka mën nañ loolu moo fi nekk instant bi capacité chambre bi moo bu nekk mètre carré bi quarante cinq mètres carrés la par par par kii quoi pour des salles d'étude bu dee bii ni ñu nekk nii ni vingt trois par chambre. nii yëpp maanaam ñi ko jiite kuréel gi ko jiite moom na nañ RAEMS RAEMS moo nekk ci ginnaaw mooy saytu liggéey mooy taxawal kii mais nag da jël entreprise bu ne mu am lu la si jox nga gérer loolu. RAEMS moo lëkkale. RAEMS mooy lëkkale yëpp moom mooy fournir matériel yi moom mooy fay affaire moom mooy yor lépp bi ginnaaw loolu nag entreprise bu ne da koo jox ko Thiam mu yor ko di gere moom muy contrôler yooyu ñu teg ma fi comme ma nekk comme représentant RAEMS. dortoir pour l'instant quatre la war a doon mais instant bi ni deux lañ réalisé instant bi muy bii nii ak bële ngeen romb fa la ne salle d'étude la muy benn yëpp ñu ngi en résidence maître coranique yi aussi deux la ñoom aussi réalisé nañ ko ñoom lañ ne moo nekk au fond fi ngeen njëkk a jaar noonu ñoom it commencé nañ ko gis ngeen avancement yi fi mu toll aussi complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi Touba ca kanam am na fa benn bâtiment bu mag boo xam ne moom la fa sasoo fa yéene ko liggéey ba mu àgg mu nekk bâtiment boo xam ne dañ fay jàngee majalis liggéey boobu ñi nga xam ne ñoo doon saytu li nga xam ne moo jëm ci complexe bi liggéey bi yëpp ci visite de chantier bi nga xam ne moom lañ doon amal ñëw nañ xool batiment bi fan la toll ñoom it leeral nañ Serigne Mame Thierno Mbacké moom Serigne Moustapha Bassirou ak mboolem technicien yi nga xam ne moom lañ àndaloon liggéey bi fan lañ ci toll. bâtiment yi nekk mooy Majalis bâtiment A2 en petit modèle bi si travaux yi boo xoolee ñu ngi si gros œuvre si. Euh, ñu ngi si poutre ak euh, ak poteau deuxième étage fañ toll instant bi nii léegi placé au RDC pare na placé au premier étage bi pare na léegi si élévation deuxième étage bi léegi poteau yi àgg nañ presque cinquante pour cent ak poutre yi. waaw délai moom nañu bala ñu si àgg incha na jeex ndax instant bi boo xoolee ñu ngi war a ñu ngi war a pare normalement euh, si mois d'octobre nañ war a pare waaw instant bi ñu si délai bi mën na àgg mën na balaa àgg foofu sax ñu pare ah waaw opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bii di Touba ñoom it am na ñaari amphithéâtre yoo xam ne benn bu ci nekk 500 places la ñu sasoo ko ci liggéeyu complexe bi mu nekk liggéey boo xam ne ñoom it biñ ko dooree yàggul ndax bu yàggul rek lañ teg xeer bi ñoom it dem nañ fa saytu li nga xam ne moom mooy tolluwaayu seenub liggéey loole leeral nañ ko ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi. bi mooy liggéey bi nga xam ne si ne commerçant yi nekk Touba ñoom ñoo ko jël sasoo ko. mu jëm si université bu Touba bi ñaari amphi yu euh, euh, kële 500 place si bu njëkk bi ñu ngi commencé nii je pense que fouilles yi def nañ ko ko nu ko ba noppi moom ngeen di kii nii euh, ak jàkkaarlool mu nekk fouille en pleine masse en plus tamit ñu ngi si implantation yi dafa des rek pour ñu vérifier nu ko implantation yi ñu mën a commencé nu ko di couler parce que li war a ñëw lépp si matériaux excellents donc dañu xaar ñu vérifier ko rek pour ñu démarrer courage yi démarrer nañ ko ñi ngi ko a def euh, si fukki weer incha allah. waa amphithéâtre yi amphi kii lay doon euh, nu ko 500 places ak bâtiment R plus 1 lay doon. parce que dina am tamit nu côté ay gradins yoo xam ne si ne mooy nekk fi place yi nekk mooy kii place yi ak les am ne si biir lay nekk en plus tamit dina am nu côté ay magasin am na tamit nu côté ay salon yoo xam ne si pour toog la pour noppali ko loolu je pense que maître d'œuvre bi def na yooyu yëpp études li si war lépp lépp loo xam ne si programme nañ ko aussi en fi si domaine technique bi dina si am mu jëm si électricité bi en plus tamit mu jëm si réseau bi lépp loo xam si ne daal lu fa vraiment jamono laaj na ko fi mu toll nii programme nañ ko si muy ay vidéo surveillance sonorisation boobu boo xam si ne tamit bu mucc ayib nu ko si boobaa lay doon loolu lépp vraiment kii nañ ko programme nañ ko ndax si étude la bokk te plan yi tamit génn na mi ngi ak ñun. ñu tàmbalee gun nii nag wax dëgg yàlla ñu ngi nu ti ngi sant yàlla parce que gas nañ ba noppi te gisuñu benn contraint kon ñi ngi jàpp ne bu ñu yàlla. Euh, dimbalee xëy na li ñu bëgg ak li ñu yéene dinañ ko def ndax wax dëgg yàlla gisaguñu lu ñu baaree fi mu toll nii. Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdoul Hakim mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ndax ku ne xam na ne jumaa ji nga xam ne moo nekk ci biir complexe bi moo ko sasoo woon liggéey na ko ba gros bi noppi fi mu toll nii ñu nekk ci finition yi mu jëlaat li nga xam ne moo di infirmerie bi moom it liggéey na gros bi ba noppi ñu nekkaat ci finition yi. loole di liggéey yu am solo yoo xamante ni mi ngi koy amal ci complexe bi yemu ca ne sasowaat na beneen restaurant boo xam ne incha allah dana ko liggéey mu nekk ñetti bâtiment yu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Hakim di liggéey loolee ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi saytu liggéey bi ñëwoon nañ doon ko nemmeeku si ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi leeral nañ leen li nga xam ne moom la ci sëriñ bi def ak ñu ci toll. liggéey bi moom bi ñu ñëwee nag dañoo njëkk ñax ndax nañ ne sàncu murit foo ko fekk la njëkk mooy ay néegi ñax muy ñax yi ngeen gis ci ab limu ñu indi ko fi takk takk ko ba noppi daal di jublu ci liggéey bi bañ ñëwee itam li nga xam ne gannaaw ab barabu jaamukaay yàlla la ñuy liggéey muy jumaa ji ñuy jaamoo yàlla ak daara joo xam ne dañ fiy jàngi xam-xam la ci war a jiitu mooy ak jaamu yàlla bañ fi ñëwee ba tey jii ci waxtu wu ma la ba tey jii ba tey jii bis bu set saa yu ñu xëyee donge yi bala ñoo xëy liggéey danañ jàng ab kaamil alxuraan ak limub xasaayit door a ci liggéey bi biñ tàmbalee muy jumaa ji ñu taxaw biñ njëkkee tàmbali semelle yi le 19 mars lañ njëkk tàmbali gas semelle yi semelle bi ñu fi njëkk ah 2019 ci lañ njëkk tàmbali gas semelle yi ci lañ ko tàmbali. semelle yi yaakaar naa ne def naa toll na ci ñeen fukki semel ak lu mat bu ma juumut ak lu topp euh, ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu yor wàll woowu dañ doon xayma liggéey bi ci gasu semelle yi rek lu toll ci weer ak nangam waaye dongo yi biñ ci suuboo ci ñetti fan lañ ko gas. li leen xaw a tardé sax mooy kamb yi nga xam da doon mabbu di daan moo leen ci xaw a tardé pas boobu leen ci liggéey noonu lañ lañ jàppe liggéey bi di ko liggéey di ko liggéey ba fii ñu toll nii tey yàlla dogal na liggéey bi mu sa taxaw bi nga xamee ne yàlla dogal na donga ne fi bañ daaw bi ñu waree ba noppi la leen sëñ ñu dem tool yi des bay mu bàyyi fi juróom man ma nekk jëwriñ ji ndax biñ man ñi la loolu defoon jëwriñ ji waaye bi juróom ñu fi bàyyi man maa leen jiite nekk ci ànd ak ñoom ci liggéey bi ak suñu magi taalibe yi benn ci bàyyi ma faal mi nga xam ne taalibe bu mag léegi ci lañ continuer liggéey bi mu sa taxaw ñu ànd kook yeneen bokki taalib yi ak ñeneen ñi nga xam dañ leen a leen fay ci lañ liggéey ba agsi fii ñu agsi tey defe naa ne liggéey bi ni ngeen ko gisee alhamdulilah rabbil alamin fi mu ne nii liggéey boo ngeen seetee muy jumaa ji euh, dal yëpp noppi na soroor yi noppi na seetlu ngeen ne plâtre yi kaw gi gis ngeen ko plâtre nañ ko ba daanaka alhamdulilah suuf gi itam gis ngeen ko plâtre bi daanaka noppi na kon defe naa fi mu toll nii ab diir bu gàtt yaakaar na yàlla mën na ci def tawfeex bu ngeen demee ci poste de santé bi moom moo gën a yokk ndax moom itam diggante bi euh, bi ñu dugg koor gi daaw daal ci lañ ko tàmbali gas semil yi te moom fi mu ne alhamdulilahi rabil alamina euh, ñaari daal yëpp noppi na raax nañ biir gi raax bitti gi karole yi karolaas yi ñu ngi ci biir karol nañ ko ba daanaka fi mu doon yi noppi na moom waaw finition daal ci la toll daanaka noppi na liggéey bi nag alhamdulilahi rabil alamin comme ni ñu ko waxoon booba ba léegi mi ngi dox ni mu war a doxee benn taxawaay mosu ci am foofu daal moo ci gën a kii te boo seetee daanaka euh, tabax bi itam defe naa euh, étage dal bi ci suba ba dal bi ci kaw première dal bi loolu mu ngi nekk 4 mètre 60 yaakaar naa mën na ko guddaay dal bi ci kaw itam noonu li nga xam ne mooy soroor yi itam boo xoolee soroor yi seen guddaay tal na ñaar fukki ak juróom ak genn wàll waaw soroor ñaari soroor la ñaari soroor la li nga xam ne mooy mooy mooy mooy plâtre yi bi itam gis nga ko alhamdulilah rabbil alamin dañ koo roy duppeeku ci jumaay Tuubaa ndax sëriñ bi bi ñuy tàmbali di toll ci arc yeeg yi yi ngay gis yëpp ci jumaay Tuubaa lañ ko roy ndax dafa dafa ñëw ne booy liggéey da nga am da nga am fooy sukkandiku roy fa dëgg la architecte yi jàmbaar lañ defar lañ plan bu mucc ayib waaye teewul nag sëriñ bi ci xaral ak boppam dolli na ci loo xam ne gën naa tax mu gën a mucc ayib royee ko ci jumaay Tuubaa bu ngeen xoolee plâtre bi bu ngeen ko xoolee yu baree bari bu ngeen demee ci jumaay Tuubaa bu ngeen xoolee da ngeen gis bi ci mooy mooy mooy waañ wi ñu koy wax restaurant ci tubaab waaw waañ wi moom itam jël na ko bu ngeen gisee ma nga na la ca gannaaw daaj nañ 16 bi ba noppi xam naa incha allah rabbi balaa yàgg mën naa am ñu tàmbali ko loolu lépp itam ci pëstéefam la ndax loolu bokk na ci aw naalam ndax bi muy waaj bi muy bi mu waxee ne day jël jumaa ji ak ak ak ak ak poste de santé bi waxoon na ci làmmiñam ne su àggee ñu jël waañ wi nga xam ne lool bàyyi woon na ko xel moom yàlla dogal tawfeexal na ko ba nag euh, mbokk taali bi bi ñuy jël yàlla xam ne yéen a jël la ko suñu borom fay yaa waañ wa des fa ba naga ni mu mu mu wane na nañ ko ci dolli loola mu àggale ko kon daal pasifam ci sëriñ bi tubaarkàlla am na solo loolu ñu ngi ñaan ko ñu ngi koy ñaanal nag yàlla defal ko tawféex kàttanal ko wéral ko ba lim yéeneem liggéeyal maamam lépp mu sotti ba ne colet lépp nag ñu fekk ko ci kanam sëñ Mourou Mountakha mu indi gëral lépp te yàggan naal yàgg àggale waaw barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëfati